Serigne Mountakha Mbacké bokku na ci xalif général yi gëna a ràññeeku ci yoonu mouride muy ci sphère médiatique bi ak itam ci walum politique de développement. nekkatul sax ku ñu leen di présenté ndax depuis janvier 2018 bi mu toggé ci khilafa geek léegi Sénégal yépp ràññee nañu ko à travers son sourire légendaire ak itam discours unificateur bi muy tenir. nek leen ci rek nek leen ci rek day gëna neex rek di gëna baax di gëna a sell di gëna <laughs> bàjjana rek nag. bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn. bëgg Sëriñ Tuubaa te muy dëgg te yàlla tax moo gën a adduna li ci biiram wallahi wallahi wallahi laataa muy toog sax en succession de Serigne Sidi Moukhtar féete woon na fële ca Porokhane ndax nekkoon na fa xalif waaye tamit moo taxawaloon daara Maam Jaara Bousso yi nga xamante ne ñëpp xam nañ ko di ñaan yàlla it Serigne bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàgg fi lool ndax xam nañ ne résultat bu fi am rek ci yittey boppam akuk ñaanam akuk jàppam ci la amee te it alhamdulilah liggéey bi gis nañ ne teg na ko fu kawe ci ay yiteem. ku ci bokk ku ne coobal suñu boroom la gum nar ci yow ay xéewal kon nag noo ngi sant yàlla bu baax a baax. yàgg naa doon nag koo xamante ni xalif yi fi jaar yépp dañu ko wóolu woon waaye tam def ko seen émissaire ndax taxawaay bi mu amoon ci yoon bi. nangu kilifteef moo ko teg fii mu nekk nii tey ndax ku nanguwul ni li def la. doo yilife mukk ku nangu ñëpp yilif la di nga yilif ñëpp moom nag ba mu fi nekkee doon sëñ Muntaxa di di di sëñ Muntaxa rek sëñ Moustapha Bassirou ne fi daan nangu woon kilifteef bi nga xamee ne sëñ mun sëñ Moustapha jóge na fii itam ku fi nekk mu doon sëñ Bassirou ku fi noon ku fi nekk doon sëñ Touba doon kilifaam daa nangu culture. Serigne nag nekk ku fonk alxuraan ak xasida waaye tamit très à ci njàngale ak ndigalu maamam bi di Serigne Touba. bu yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati bu mu laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi nag bis ba la jëm jëmul fer bis ba ci la jëm kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë baa ngoog en grand visionnaire huitième ème général des Mourides bi taxawal na université islamique qui gëna a ci Sénégal coût global bi tollu ci 37 milliards. génnewul ben yon loxom nak ci politique de développement au Sénégal te gën nako fësselat ci jamono ji Covid 19 bi ak ni mu ci taxawé te ne dimbali gi weesuwut weesuwut wax ak ngor gi gor né lim mi ni mu démé il faut que ñu borom xel lañu il faut ko kon itam jóge ci jëy yi jëm ci jey mo amul yari da nak moy lolu waye nak ala kul xaal itam nag dañuy faaw ñu dug faaw ñu jëfe sen sen sen seen xel sen pexe sen xam-xam. seen seen jamono ah il faut que ñu ñu ñu ñu ñu jéem jéem googu diggante soosu nag du yàgg du yàgg du yàgg lekkoon naanoo moom di mbooloo mbooloo mu lekkoon naanuñu loolu moom ñoo ñoo corona yem kon nag bu ñuy daw daw corona yi jëm ci jëm ci jaay